est-ce que le président de la République mën nañu ko traduire à la CPI. bien Nous sûr ñu ko agité ci contexte bi euh, CPI. c'est possible euh, CPI kii euh, moom mooy compétence bi non seulement euh, c'est imprescriptible les crimes yu ñuy euh, euh, yi nga xamante ni crimes yi nga xamante ni moom moom la CPI mais n'importe quelle qualité muy président la République muy chef d'état-major. muy opposant muy amul kenn koo xamante ni CPI jomm na la. avec événement yi mujj c'est possible de le traduire devant cette cour là. ça dépend des faits qui sont déférés et aussi de la décision du procureur. moom moom mooy euh, enclencher les poursuites.